asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna euh, mbokki Sénégal xam naa li ma leen di wax nag yéen a ma gën a xam waaye fas lum daw daw daw làbbali ko wàññi ci dara jàppante ngeen àndandoo mànkoo ba xeex dagg buumu njaam gi fi nekkoon mooy noteel gi ñu notoon yàlla teg fi ki nga xam ne mooy président Bassirou Diomaye Faye mbokk yi Sénégal laa juddoo Sénégal laa yaroo Sénégal laa màggee bu leen gaaw a critiquer bu leen gaaw a xaddi bu leen gaaw a décourager ndax li ñu fi yàq ci ay ati ati at lu toll fukki at ak nangam li fi yàq mënuñu koo defar ci benn at wala ci ñaari at wala ci ñetti at la leen ko may teegi bakkanam mu liggéey Sénégal ndax jeune la te am na fi yéene beneen bi ci topp mooy président mënul buntu kër gu nekk mu fëgg ko jox la junni wala ñaari junni wala nangam déedéet ñun jeunesse bi ku ci nekk la nga nekkoon demal nga dem àggale ji ko bu dee da nga ada sam nga dem egil sam sam bu dee da ngay yang nga dem nappi boy bay nga bay boy yor saret ni man nga dem egil sa saret Boy jakarta nga jakarta boy cak-cak nga dem cak-cak ñu may ko teegi bakkan japp ko te jappale ko mu liggey senegal ndaw la ta amna yene mbokk yi may ñaanal ki nga xamne moy son excellence basirou Diomaye yalla na la ndam li jik yalla na woyof tollu ci yow yalla na yalla jappale la yalla na yalla ar la yalla na yalla sammal mbokk Sénégal yi maa ngi leen di jaajëfal te di leen jéggalu nag yàlla na yàlla doole ci réew mi jàmm jërë ngeen jëf jër ngeen jëf jërë ngeen jëf daan bëgg a wax nag waaye wax daa yombutoon ndax boo waxee ñu ne la noos moo tax dañ daan def nii ki fi yàlla teg nag yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na yàlla yàggal taxawaayam Basiru